que may wax c'est des informations de première main yéen yéen ay gérer sécurité foofu wax leen ko waa APR dañoo recruter ay ay centaines de nervis nervis yooyu nag ñu ngi fépp taxaw ñu ngi ci BDN bi ña nga Parcelles Assainies ñenn ñi planifié nañu dañuy ñëw attaqué sama kër ñuy jël nag Sénégal yëpp à témoin parce que loolu Macky Sall ci boppam. Macky Sall ci boppam ci liñ ñu wax ci information ak soxnaam ak doomam ak benn général bu nekk pare ñooy coordonné directement ak nervi yooyu di leen jox ay instruction bu dee nag Macky Sall guerre la bëgg ci réew mi du am waaye lii mu nekkee bu ko continuer liy tooy ci moom lay jóge loolu daal laa bëggoon a wax jël Sénégal yëpp à témoin je le en français également pour la communauté internationale et dire aux gens que Macky a planifié avec sa famille, son épouse, son fils, d'après les informations qu'on nous a remises et qui sont des informations de 1 mai, ils ont recruté des centaines de nervis armés pour euh, s'attaquer physiquement à nous s'attaquer à notre domicile, s'attaquer à notre convoi et saboter la manifestation d'aujourd'hui. Et l'autre objectif de ces c'est de se mêler aux manifestants pour ensuite commettre des exactions et des forfaitures qu'on pourrait imputer à la coalition Yewwi Askan Wi. Je tiens à informer l'opinion nationale et internationale. Ce que je dis, les forces de défense de sécurité sont informées. Elles le savent très bien, mais elles ont reçu l'instruction de ne pas sévir contre ces milices de Macky Sall. Si l'objectif de Macky Sall, c'est de créer le chaos dans le pays, de créer une guerre civile, je dis à M. Macky Sall que c'est voué à l'échec. Il ne peut pas mettre les Sénégalais les uns contre les autres. Mais lui et son groupuscule de personnes, parce que tous ces nervis-là, nous savons qui ils sont, nous savons qui les recrutent, nous savons Nous avons des audios, nous des vidéos, nous savons qui ils sont. Et ne représentent rien par rapport à ces milliers, voire ces millions de jeunes qui sont prêts et déterminés. je dis qu'il n'y aura pas de guerre civile.